coow bi amoon Las Vegas Cincinnati pënd ba wureegul ba tey Amina di ndaw si fi tuumaaloon Tange Tandian ne moo jël ay takkaayam jamono ji nag gannaaw ñeenti fan yuñ ko tëjoon kaso ak ñeenti weer yoo xam ne dafa nekk ci loxoy yoon ñu takkal ko bracelet électronique Amina lu toll ci ñeenti weer a ngi nii justice américain yi jot nañ koo génne këram ci contrôleur judiciaire bi nga xam ne moom lañ teg ci loosam Amina nag gannaaw ay message yu mu jëloon envoyé ko ñenn ci ñi ko doon harcelé ca la mujjee jot plainte boo xam ne cas criminel la suñu sukkandikoo ci suñu source yenn ci ay message yu muy jot ñoo ngi koy menacé ne ko danañ la delloo Sénégal le 2 février bi ñu jëm ci la Amina wala jàkkaarloog ak way attekat bi ba xam dañ koy indi Sénégal am déet gannaaw ba ñu jokkook Amina dëggal na ne plainte bi daal dinay am te nag cas criminel la ndax le 2 février bii ci la war a dem wuy ji àttekat bi ba xam Amina dañ koy indi Sénégal wala dañ koy tëj foofu ci réewum États-Unis